édition spéciale waaye nous restons toujours face à l'Assemblée nationale dans quelques instants nous assisterons euh, à la nomination justement euh, de la président euh, du président de l'Assemblée nationale à la poste euh, au poste justement de la présidence de la dégg si nous par rapport à kan moo euh, exactement le président de l'Assemblée nationale foofu de la présidence de l'Assemblée nationale alors Serine, peut-être si loolu. Euh, am na ay figures yo xamni ni do no positionné wu bokk na ci El malik Ndiaye euh, bokk na peut-être ci Ayib dafé ah dégg naa ñu tal état euh, et tant d'autres alors pas mal de figures yoo xam ni itam ñu ngi surtout El malik Ndiaye ak Ayib Daffé ils sont bien partis justement à être le président de l'Assemblée nationale. Alors, Ben Tiang, ça a par rapport autour des supputations à quelques encablures, justement, euh, ñu daal dévoilé dévoiler président bi. waaw mais euh, xam nga liggéey bu am solo la. Hmm. voilà déjà euh, poste président assemblée nationale déjà il faut mu nekk un porte robot. koo xamante ni déjà mun na am vécu bi vécu parlementaire. koo hmm. xamante ni également si wàllu yoon tamit. Hmm. il faut mu xam si dara. Mm. am ci tuuti. Mm. ñu bëri nag euh, bon am na ay figures yoo xam dessiné na leen mais parce que moom gis naa ni compétence technique boobu moom ku ne rek mën nga doon président wu assemblée nationale parce que am nañu ay borom xam-xam. dafa doon authentique passif mm. wala nga jàpp ni. waaw mais bien sûr ah, na peut-être nag doxalee na leen. parce que àll kan doon naa ko dégg. mais àll moom sax nee na moom liiwul. non man gëm naa ni. mën désintéressé wu la si loolu. mais de toute façon ce dinañ def choix bi gën parce que si élection présidentielle yi candidat yi bëri woon nañu. dëgg la Pastef du woon Bassirou Diomaye Kassé. ok El Malick bii naa jëloon na kii. Hmm. Euh, fiche fiche Birame bi Diop Birame Souleye Diop. Amadou hmm. Ba ñoom ñëpp jëloon nañ. mais hmm. finalement gis nga Bassirou Diomaye Faye la Ousmane tànn. d'après ay waxtaan yu waxtaan ak ñeneen. jàpp naa nag ci même chemin boobu la ñu ñu bëri ñu ngi wax Ayib Daffé aussi. ok Ayib am na am na profil bi. ok lu waaye mën a wax itam am na profil bi te xam naa

bés bu ñu leen ni Sénégal remettre en cause parce que vécu bi ben, expérience vécu mais dafa am également caractère caractère caractère euh, mm. personnalité mm. persistance bi persistance mm. en tout cas ni débat parlementaire la bu si toutefois choisir mais parce que alors en tout cas bis le choix

14e législature. Oui, mais. 13 ans. Oui, installation. 14e mm-hmm. législature. 14e. 14e. 14e. Mais là, attendons de voir. Il y a beaucoup de profils. Mais là, bon, il y a le bas. De toute façon, on aura de bons profils. Alors. Oui, euh, à la présence alors alors euh, El tout le monde de plus en plus nag mi ngi exactement. exactement euh, alors euh, yow itam Mor est-ce que da nga partagé avis bi que El Malik Ndiaye peut-être euh, na positionné aussi li nga xam ne moo président de l'Assemblée nationale. waaw man mom li ma yàgg di wax rek comme ni ko Serigne waxee léegi président assemblée nationale ko ne man mm. nako ko ci passé man ni man nako ko Serigne man nako ko mais nak mm-hmm. day am choix te man moom man bo man sa xamna du bette askan bu génnee man ko melni ay ayib man mom lay xaar. wax dëgg yàlla. El Malick nag ko léegi waaw ko bàyyi transport mu doxal. waaw ñun nag comme ni nga ko ni ko sëriñ waxee te ñu am suñu xam-xam nag suñu xalaat di analyser di wax. mais Sonko ak le président de la République sëñ Bass xam na ñoom lan lañ war a def. Hmm. mais man gëm naa ni te su ma tëddee nelaw yeewit te gëm naa ni bu ndogal bi waat tamit man ayib laa gis. Hmm. ci côté juriste bi nga xam te ne def na ko. Hmm. gis nga li mu fekki ci li nga xam moom mooy ci participation ci élection yi. gis nga jaabante yi mu jaabante CDC. gis nga li ko def mais. maanaam métti laa koy def moom tamit ndax xarañ ceem comprendre nga ni ko sëriñ wax laay waxaa rek parce que moom danoo xarañ danoo ay te xam fan lañ jëm mm. kon ku mel ni ay moom wax dëgg yàlla bu ñu xëyee ñu ni moo toog fii ci président assemblée national ñun du duñu bett de man boo ku mel ma dinaa ko rafet mm. naa ci d'accord à cent pour cent mm. vraiment man na ko am na charisme mature na ko ah yàlla na di ko ñaana nag yàlla na yàlla def mu doon moom su ko defee mu doon ayib ko defee El Malick ne rien contre man aw baax na mais fi mu nekk mu ministre de transport jàpp naa ne mu koy doxal waaw Amadou Ba déggoo ko muy xëccoo ah, dara peut-être ko fi bàyyi moom ministre de la santé bon ça ah, loolu ñeneen ñoo koy wax rek mais moom moom moom eh. moom moom moom mu ngi du ah. non dinañ changé ay ministre man maa la ko wax hmm. am na ministre yoo xam ne wóor na ma ni moom ñii moom dinañ tëb parce que essayage lañ nekkoon di leen xool ndax xare ñun wala xare ñun hmm. mais encore ñu waxaat ci ensemble bi rek balaa ci ñuy gouvernement ak yooyu hmm. mais man daal fi may waxee mooy Amadou Ba laay wax léegi bu Thiès Ah, vraiment. Euh, man na ko waaye dafa doon koo xamante ni nekkul kuy xëccoo dara. waaw tubaab la vraiment dafa doon koo xamante ni dafa gore. vraiment te yaru man Amadou Ba dama ko estimé ba nga xamante ni. di nuyu suma booy Sentinelle Thiès ñoom Jibi Sarr ñoom Matar Babou suma eh, frère. Eh, eh. ñoom ñoo àndi liggéey nekk fa ak Birame Souley. Hmm. mais daal man daal sama gis-gis daal sama analyse xaw ma ndax baax naa baaxul sëriñ mais man daal gis naa ay mu toog ca photo yi ba Moustapha Niasse daan toog ak Mame Diop. waaw di wax waaw di wax vous voyez très bien. Hmm, hmm. <laughs> vraiment. Euh, euh, alors tey aussi série ñu gis euh, li nga xamné que modi justement euh, groupe parlementaire bi pas peut-être du bëri assemblée nationale lolu lan lay euh, traduire concrètement parce que à part peut-être kenn ku dem fekk ji waa takk wàllu motax ñu mat li nga xamné que modi groupe parlementaire je reviens wa wa Abdou Karim Sall dem fekk ji wa li nga xam que modi di donc mu nañ japp ni ben groupe parlementaire la fa opposition bi di am concrètement ah mais peuple bi choisir noonu rek Mm. <laughs> li nekk li li nekk ci urne yi. Mm. mu reflété wu assemblée nationale. l' action gouvernementale. est ce ah. que du sam après parce que il faut opposition bi tamit di ko superviser. di ko di ko di ko superviser. contrôler quoi ah, di ko contrôler di ko superviser surtout. ak li war a jàll assemblée nationale même bu fekkoon ni opposition bi sax benn député la am assemblée nationale. Mm-hmm. ba tey mission boobu opposition boobu opposition boobu mun na ko assumer. parce que déjà cër la bu nekk ci constitution ba pare. Mm-hmm. kenn du ko dindi. Mm-hmm. te foog faut ñu rappeler benn affaire Fallou xam nga man dafa dafa pour man question bi euh, débat bi da ko raw xam nga ndax man débat bi da ko raw. Hmm. Sonko ak ñi mu àndal dañoo daje séminaire bi ñu doon def fan yi bi ñu def xam nga mbir mi nekkatul mbiru bu ñu ko assemblée bi ñu ci ni ma jàngatee. nekkatul mbiru groupe parlementaire nekkatul mbiru opposition. Hmm. tuuti la fa ñii bëri nañ fa xam nga mbiru lan la. Hmm. c'est c'est le peuple actuellement lañu war a wax xam nga mooy la Sonko a tenu un discours extraordinaire ca fële bu ñu demee séminaire. Mmh. Saly waru leen ànd ci parce que tout simplement ay député Sonko les députés député Pastef ngeen. wax na ko. tu as vu. Mmh. mune nit woy di len defal privilège yi ñu leen di defal ba paré te du ngeen taxaw askan wi kon ñoom dégager na sen responsabilité ça. à dire tey même contrôler l'action du gouvernement ku si nekk am nga sa indépendance bo gisé ni li lu ñu war a contesté la nga contesté ko te pourtant ci ci liste mouvance présidentielle bi nga génne foofu la ñu war a toll loolu moo xew ci réew yu développé yi tey France bii dangay gis koo xamante ni ci liste Macron la génne mais mouvance présidentielle bi day indi dara loo xam mu lekku ko ni lii baaxul mu contesté ko foofu la débat bi toll. Hmm. tey war nga mën a gis un Amadou Ba Amadou Ba bu Thiès mouvance présidentielle bi indi loo xamante ni tey na xelam wal gisee wu ko noonu taxaw wax ko parce que loolu la ko Sonko sant.

mais tey rek mais tey rek sëñ maa maa fa doon gis balaa ñooñu suluwaay bi ak ay sal tey maa fa gis ay sànnante track entre député yi loolu dafa ñàkk exactement. non waxuma ne mu ñàkk fa de. ah xam nga duggaguñ ci ay. tey rek mi ngi am tey rek mi ngi am. tey tey loolu c'est la vitalité démocratique. Mm, loolu moom mm, mm. mënul ñàkk mais dama ne la. man ma nekk dans l'opposition kii nekk si pouvoir ñu indi dara loo xam ne lan lañu liy njëriñu askan bi ñun ñëpp ñu ànd ci. fofu la man pour man fofu lañ toll parce que son ko dajale na ay nitam wax na leen ci hmm. japp naa ne opposition bi aussi même au sein de l' opposition aussi gis naa fa ñoo xamante ni taxawaay boobu la ñuy am hmm, hmm. parce que opposition bi nag am na si ñoo xam ñu gëm seen bopp lañ te tey ñu ngi assemblée nationale xam naa leen si seen taxawaay ak si seen xarañte maintenant nag la ñu soxla mooy lépp luy affaire parti politique ñu dindi ko dindi ko fa ñu dindi ko tu as vu loolu léegi nag gis-gis boobu bu ñu ko amee rek dootul nekk ma Samba ak ma Demba député yi lañ leen sant bi si moy contrôler l'action du gouvernement. légui nak contrôler l'action du gouvernement buñ koy def nak warul am particulier tu as vu. kon non nak japp un débat bi aujourd'hui dafa wara a passé ay opposition et cetera. Hmm. alors Léon exactement par rapport à li que l'on ne que euh, la présidence de l'Assemblée nationale alors sans que ngi ko du juñu moom la ñu di ñëw du côté de la régie exactement.